xanaa nag euh, di am ak jaaxle ci département bi pëccaxoo bi ak ŋaayoo bi te président Macky Sall lim liggéey ci Touba méngoot ak li fi am ndax euh, teraanga ji mu fi def ak ni mu jàppee dëkk bu sell bi Touba ak ni mu jàppee euh, xalif général de bépp xalif mas a jaar rek kon tey ji war nañu koo fayee leneen lu du pëccaxoo ak ŋaayoo man nag jël naa samay engagement. ci tertu ko tu ba rafet fépp mu am mbooloo li ko commencé Touba Belel ba Madiyana 1 ba 6 ndax moom ma ko jaral ndax li ko si mun taxaa wax ba bëkk démb rek sëñ Touba ngay defal ñu kàddu si mu Touba mu tax si mu taxaa googu ci liñ fas yéene dëgg ak trang ñu defal yoonu murit bu yàggu doomu Ila Touba xam moo ci Afrique ci woon dëgg ak jàpp gum ñu jàpp jàpp gum ñu jàppale ak yaram ak tegginam bu fas yéene ko teeru sargal ko teral ko bu teetu bi jàll jàmm ñu fas yéene ci terrain bi dépp lu man ci campagne liggéeyal ko ñu liggéey liggéey ba fekk doom xooloo doom xeex. loolu lan laa ci wax ñoom bu amee doole Touba ñun ñoo may doole ñun ñun la rëdd APR yi bu ñoom bu ñoo may doole ndax ñoom ñu ngi liggéey liggéey ba fekk ëmp ca xaw ma ñu nekk ci pouvoir parce que dafa ki kii mos ko fee def ñu war koo jàppale xool li mu fi def war koo dimbali liggéeyal ko te xuloo dam ngaa yoo daam te nag balaa xuloo xeex am rek ñu ne xaas dugg dëkk bi muy lu ñaaw lu ma rafetlu ndax doo gis kenn bu xaalis ñu wut waaye bu xaalis ñu ñëpp génn pëcc ak ngaayoo ginnaaw ñoom ñoo mën a lëkkaloo doon benn di réunion di liggéey ñu ñoo kenn mënu ko waa def ndax suñu leader ah, lii ñu ko li lii suñu leader eh, lebaluñu ko ngor la ñu lebal ak ci ak jàpp kon war na ko fayal leneen loolu ñu xuloo ngaayoo waaye man li ma fas yéene kenn du ma ci jégg te képp ko jàpp ne man maam say Mbacké bank naa samay lox bank ma samay loxo tey jii laa gën a am engagement ci parti bi jàppale président Macky Sall ndax mooy sama leader jàppale ko xeexal ko doolu ko dëkk bi tey jii engagement bu benn responsable jàpp ne xuloo xeex na ba kenn dégg ma ca wala si sax bodante ba kenn dégg ma li may def mooy liggéey liggéey ba rafet ba sama leader sedd ndax loolu ko war a fay awul ñu ko fay xuloo xeex ak ŋaayoo ak si sante ak bodante xeebante moo fi am ak di wanante doole te doole daraja kenn du ko jaay ci politique lu jar jaay mooy su fekkee ne sa leader bii nekk nga nekk ci ab ab élection élection kenn xam élection dafa parce que président kenn ku nekk xam na depuis deux mois ngi nii toogu noppalu mun xoola ci moom rek moo gëm la naqata wane wu ko kon nag fii lu fi jar xuloo ak ŋaayo ak bottante gisuma ko fi ñun na ñun du ko dalee ba yaan un ba six ñuy sama njaboot ba tubaab bi kenn du ci dégg ñun leen xam liggéey ak noppi. bu ñu joxee ay moy na liggéey moy nañ liggéey ndax président moom ko jaral man kenn ma ci digg mukk waaye nag lii moom gisuma sëñ bu baax naa ko teel wax président ay bu àndee liggéey na war a boole doon benn waaye bu xeebant amee rek lu ne mën naa am parti mu jiitu parti mu dem ci Touba ndax li président bu kenn jiitoo kon génn te ay yet dana am te njiit war naa ci tuuba bu nu nan war a mel kenn war naa jug kenn topp ci ginnaawam waaye kenn ko boo xool sa intérêt bopp rek toog sa kër toog sa sa xool sa intérêt bopp dama naa bëgg kenn ku nekk teg sa intérêt am intérêt président te intérêt président mooy doon ñu ànd juboo doon benn xàccandoo dóorandoo waaye bu kenn ku ne jaar fii kii jaar fii ndam mën naa bañ a am de nan teg intérêt teg intérêt président fi ne kenn soxla président moo soxla comme moo soxla nan ñu dimbali ngir jëmmi Serigne Touba bàyyi xeewante xeebante bi ak ñiroo bi ak ŋaayonte bi ak yàqante bi te liggéeyal président ba am ndam bi su amee ndam ba noppi nag kenn kenn ku ne la nga war a nga ko mën a waxee sa bopp man a ci loolu laa nekk. wàllu waaw suba li may dénk responsable tamit nag ñu bàyyi lépp booloo doon benn nawlante ndax euh, politique jërul yenn yi ñaar fan rek moo ci des day jeex nan booloo doon benn tam nag mu sedd guy tamit xeex bi xuloo bi dara jëru ko fi. ndax li ma wax rek président moo soxla kenn soxlu kii soxlu ne te kenn ku nekk boo wéetee sab la ma la joxee tiraang sab loxo dëgg loxoy dëgg Touba na bari waaye président tamit kër nekk loxoom dugg na fa bool ca bi rek teggi nag taalibe damaa jëlee loolu lépp mu def ci kër kilifa yi nag ak taalibe yi ak politiciens yi ñim ñuy jàppale ilaa Touba bi dafa jar kenn ku nekk war a suur lu bari te jàppale ko am dama ma ci loolu laa nekk ñun ñoo ci des parce que daam wàccu naa ñun kenn déggoo sama ci xuloo tubaab gi nekk idole yi di yoonu murit kon ñun di jàmm ñun ñoo ko war a njëkkee ñoo ko war a mujjee nan bàyyi xuloo bee ŋaañoo bi lii ris bariwut ba président am dam ma loolu laa gis